waaw ah, kon léegi mbër ñu daal di wax ci li waral coow muy euh, mun naa ni donc sa mentor Balagay numéro 2 le chef de file de l' école de lutte Balla Gaye war a jàmmarloo ak Modou Lo mu doon combat boo xamante ni tey ñii ne nañ c' est un combat à haut risque pour Balagay numéro 2 parce que ña bu ci amee revers rek mun na mun na doon mun mun na metti trop ci moom mais victoire mun na ko yóbbu ci couronne bi nu moom moom lay wuti instant yow bi nga gisee mbër gis na la nga ànd ak moom ci euh, face à face mujj bi ban état de forme nga ko gisee non Balagay combat bi jaral na ko parce que ku bàyyi këram tëj këram dem 3 mois nekk internat ñu tëj la di la jox badge di la wax heure yi ngay génn ak heure yu génn am na yoo xam ne boo ko génnee boo ñëwee doo lekk yow Balla Gaye 2 champion la kilifa la am na xaalis am na lépp macha allah mais dafa bàyyi lépp dem nekk si internat ñu tëj ko trois mois mu liggéey kon combat bi jaral na ko mais Balla Gaye 2 bu daanee Modou Lo d' accord nag dina yokk palmarès am ko mais Balla Gaye 2 ku daan Yékini daan Tyson ay Modou Lo yi wax yee fi nekk rek mais Modou bu jaaxalee Balla Gaye boo bàyyi. Modou Lo mënul jaaxal Balla Gaye si làmb ji wax jee fi nekk nag ku nekk naan Modou Lo lii def na lii nangam ak nangam détails yooyu mënul ñàkk si làmb quoi détails yooyu ak coow làmb ñoo ànd mais Balla Gaye xam na man xam naa moom liggéey na jàppante nañu muy liggéey combat bi ba kanam la si teg te nee naa combat ku ko yombalal moo la xañ te ba kanam noonu la demee rek. waaw loolu am na liggéey na comme ñëpp wax nañ ko ba ci adversaire am sax Modou Lo ni liggéey na mais des na yow lan ngay tontu ci lool non Modou Lo lay wax rek loolu waxi mbër rek fii chaque jour mbër dem fi liggéey ba ñëw sa adversaire di la découragé loo di damm say moral naan la bon yow des nga te lii manqué nga lii yooyu yooyu yëpp bataille psychologique la rek mais Balla Gaye ko xool xam ne liggéey na te bu làmb bu mu summee ko ba ngemb ba taq si la si xam kuy amoon ak lu mu liggéey. waaw ah, yow lan nga nan nga jàpp ne noonu la war a aborder combat bi nan la ko war a bëree. non Balla Gaye de mënatuma dara si bëre ndax man moom ma jiru si bëre lu mu am si bëre yàlla def na óomu ko lu mu xam si bëre yàlla def na xóomu ko dañuy topp si ginnaawam la gunge ko. loolu laa mujj laaj loolu nag ñun dinañ ko def mais dañuy topp si ginnaaw moom lu mu a def xam na moom lu mu war a def xam na ko ndax bu dee benn at sax man moo ma ko magee kon lu mu war a def si làmb ji xam na ko Balla Gaye 2 lu ko nit di conseil si làmb wax jeef nekk na ku nekk di wax euh, bon say actes yi nice rek parce que am yéene dafa dafa garaaw ak far bi rek mais man mënu ma ko wax lu muy def si làmb loolu xam na lu mu war a jëflante ak moom lool te su boobaa incha allah dina ko def waaw comme li ma waxtaan sànq rek ak père parce que bu ñu déggee ñoom seen discours mooy ñi nga xamante ne ñoo faree côté Modou Lo waa parcelle ak même staff am euh, li ñu préparé mooy ñoom dañu bëgg a diréel bi bëriloo mbër ba nga xamante ne jàpp nañu sonn na ndax ñoom jàpp nañu physiquement ñoom ñoo gën a taxaw ñoo gën a pare physiquement doo ko daan yow lan lan ngay tontu ci loolu waaw loolu waxi mbër rek Balla Gaye 2 noo ko yóbbu Modou Lo mënul yóbbu Balla Gaye 2 Algérie mënul nekk Gris wax Balla Gaye làmb jo dañ koy cons ba mu ko conseil Balla Gaye 2 nekkatul mbër booy téye di ko yóbbu à l'usure mu jot ay millions par rapport ak combat am ay un an wala deux ans ba ñëw foofu nga da nga ko yóbbu à l'usure loolu mënul nekk loolu waxi mbër la rek Modou Lo mënul si Balla Gaye caaf su bëggee dégg-dégg. waaw lom ci loolu rek Modou ñu dégg ko récemment mi ni ñemewul xeex ak moom tey bu ne day taw xeex ak moom rek day day day day bëggal ay supporters mais ñemewul xeex ak moom. loolu ay wax la rek Balla Gaye 2 ñu ko a woo si xeex ñëpp balaa mu jël ñëwee xeexuñu Tapha si xeex ñoom do ñep bo ñu ko ci xex bala am ñëw dañoo xeex dañuy sóob rek duñu dara ku su jaxar ak balagay di nga tal ah, leen loolu xex alom buñ buñ déggee ngay waxee dafa melni ni yow yag nga and ak mbeur te xam nga ko bu baax te li nga wax ni fu wóor nga ko tek non yag na and ak mom xam na ko bu mu bërëm bappat la woon balagay bu mu bërëm bappat la ba tay kon man ak mom du ben fan kon xam naa ko bu baax xam naa lu mu mën ak lu mu mënewul xam naa ngëm-ngëmam fu mu toll ak fu mu tollul xam naa capacité fu mu toll ak fu mu tollul kuy taxaw wax di wax si média yi nii rek mais boo jàkkaar ak moom su boobaa nga xam ni yàlla <laughs> golo du bay baabam du dundee wala. waaw ñu bëri tamit dëgg la nee nañ naam liggéey na fan si ni nga ko gisee seen xel dal na mais au niveau des contacts côté contact est-ce que mbër contact na ba os est-ce que xel war na woon mën nga dalal xel supporter ci côté boobu. xel supporter moom lu ñu wax dal ndax mbër mooy contact chaque jour mooy contact. c'est que dafa combat yooyu dafa laaj secret quoi nga liggéey sa liggéey secret yoo xam ni yow sa waa gars yi ngay àndal mafia bi la quoi mais chaque jour a jëfee mooy contact combat bi mën naa kaa waatal lu mu si contact mu si ko contact sax si combat waaw. kon mën na jàpp ni lim gëj a ñëw ci école bi daal fii raar kon loolu stratégie la boo xam te yéen a ko adopté. non waaw non loolu moom kii la rek mais yooyu yëpp du dara incha allah dina ñëw si école bi suba jeudi incha allah dina ñëw jeudi ak vendredi bi incha allah. waaw mbër ñu bàyyi la kon nga nuyoo rek ak ban message ngay lancé comme gëj nga bëree surtout say adversaire ak à l'endroit des promoteurs. non lu may lancé moom fi mu ne nii lu nekk sama kanam mooy le treize incha allah ku mënoon jox combat sax du ma jël ndax damay xaar ba combat jàppale ko comme moo fi champion Guédiawaye moom la ko yàlla def moom moom man moom man man loolu laa nangu moom la ko yàlla def kon nag ñu ngi koy yàlla may ko ndam ñu ñaanal booy nekk si école bi tamit tout ça fu baala ngay àgg ñu jëm fa àgg parce que yàlla rek mooy maye ko te yàlla néewul ni kenn yow la yàlla ñëwul si nit ni ko yow la waaw da rek mu fekk la kon nag ñooy ñaan yàlla mu may ñu lu gën si ñun quoi moo ñu sutura biir ak biti di wax sama gars yi man maa ngi ci maa ngi ci coupe bi maa ngi liggéey instant su ma amee combat jël su ma amul combat tamit teewul ñëpp xam na ne man damay entraîné matin soir waaw loolu la. waaw mbër ñu lay sant bu baax di la gërëm.